mbokk yu baaxoo seetaan seen télévision almouridiya ci seen émission bi di ziar ñu ngi leen di dalal ak jàmm fii ci Mbàkke Bawol waaye nag Mbàkke Bawol dafa ëmb ay gox yoo xamante ne yu yaatu la yu fasantikoo ci biir gox yooyu nag ñu tànnoon ci goxub Mbàkke Xewar ñëw fi tey ngir àndante ak yéen cosaanul Mbàkke Xewar ak kañ lañ ko sañc ak kan moo ko sanc ak itam diggante mbàkke yi nga xamante nek na fi ndax mbacké dimba ngi fi waaye mbacké bari yi itam mi ngi fi yoyu yëpp nak su ngeen ko bëggee xam ñu and ko ak yeen topati ko ak yeen ci biir seen émission ziar kon ñi ngi leen di wax dal leen ak jamm bokku téléspectateur u Al Mouridiyyah ñu ngi leen di sante di leen gërëm ñi ngi leen ko waxé won ci tàmbali bi seen émission ziar ñew na fi tay ci dëkk bi nga xamantene mom lañuy wax mbacké xéwar mbacké xéwar nak dëkk bu mag bo xamantene euh taarixam siiw na te yaatu na lool bala ñu ci sori ñi ngi ak euh, tok ak Serigne na mbacké di kenn ci sëti Serigne Mamour Diarra ñu jox ko rek mom mu tijjul na kaddu gi kon Serigne na bismillah euh, bismillahi rahmani rahim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه نا داني سانت يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي ديغلو سيرن عبد الله مبكي يالا بور ميغا خامني موي خليفه سيرن مور سخنا جارا نيان سان بروم ياغال كو في لول تي ياغال نتي غيناو تي ليغي بيغا خامني مينكو سومبو سومبال كو مامام جي باخ سي مور سخنا جارا yalla sa borom may ko katan te may talibi katan buñ ande ak mom bam liggey ko mu egg manam hmm, digel li nga xamne mom lañu jox eh, te ubil buntu kër gi itam ñi nga xamne ñoy eh, al muridiya ngir ñu mëna xam li ñu bëgg xam ci borom sam mu boole won ma itam ak eh, njabot gi nga xamne yalla sa borom dogal na ñen lañ ci kër gi muy sëriñ Sam Mbacké moom Serigne Guédé Mbacké nga xam ne moom la santoon ne ko na def ay waxtaan ci sëriñ bi ngir defal ñi ak leeral dend ak Serigne Bara Mamour Diop mii nga xam ne moom itam mooy chef du bi waaye bokk ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéeyub jumaa ji ak Serigne Mbacké Sadio mi nga xam ne yàlla saa borom dogal na moo yore liggéeyu jumaa ji nekk sëriñ Maguèye mi ak sëriñ Alaaji Jatara nga xam ne it moo nekk di imam bi jottali woon kàddu yi sëriñ bi rek xam ne moo joxe ndigal ci ñu def lii kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ko defee ñu bàyyi sëriñ Sàmm tàmm seen Sam ñu ngi lay nuyu te di la ziare euh, di la dalal ci émission ziar ci télévision Al Mouridiyyah euh, ginnaaw dikk gi nga xam ne dikk nañ ko ci Mbàkke Xewar nag ñu bëggoon a tàmbale yow ci xam jëmmi Mbàkke Xewar ci boppam moom kañ lañ ko sañc ak kan moo ko sanc bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa euh, ñu ngi. nuyoo mboolem mbokk ñi seetaan fu ñu mën a nekk ci àddina bi di nga xamal ne tey ñu ngi fii ci kër Serigne Mor fii ci Mbacke Xewar toog ak suñu kilifa Serigne Cheikhouna moom Serigne Cheikh Penda moom Serigne Mor jaara ni ko waxee woon rek tey fii dañ ñëw teelaayal Muridiyya di am ay leeral yu bëgg a xam ci jëmmu Mbacke Xewar ak Serigne Mor jaara Mbacke Xewar mën nañ ne mënoo koo wax te waxoo Mbacke ndax danga ne Mbacke ba noppi yokk ci Xewar. kon day mel ni kon ab quartier la bu nekk ci biir Mbàkke boo xamante ne bii kon sëñ Mor Diarra moo ko sanc waaye jëmmi Mbàkke googu mu nekk ñu xam ne nii maanaam maam maaram mën nañ ne moo ko sanc sanc koo xamante ni Amérique woon moo ko ko joxoon ci cent 1194 waaye moom su fi dëkk doomam Ahmadou Farimatu moo fi nekkoon moo ko sanc ci loolu ci la fi nekk ba ni mu fi jógee ba ci jamonoy sëriñ Mor Anta Sali bi mu ñëwee gane àddina ci mille deux cent trente bi ñu demee ba ak si loxoom itam mu ne ci Mbàkke nekk fi nekk fi nekk koo xamante ne bii ngir ñu wax ku sañ ci Mbàkke xewar day jafe te waxu la ko làmb ba Mbàkke xewar am ndax euh, ki nga xam ne mooy banqkor gi ñu toog muy Sëriñ Mor Jaara dafa nekk jëmm joo xam ne ni Sëriñ Anta mooy waajuram ak Sëriñ ak euh, Soxna Jaara muy seen taaw taaw maam Anta Sali taaw soxna jaara ah bi nga xamante ne bi itam loolu am na waajuram nekkoon kuñ xam ci jàng ak jàngale jànge ci daara yi gën a siiw ci kajoor ak njàmbur xam-xam bu jëm lépp lu jëm ci wàllu langue arab foofu la ko jànge jóge fii laxas dem saalum jàng fa lépp lu jëm ci wàllu diine ci jàngalekat bu mag bu siiw bu ñu wax bu siiw bu ñépp xam bu ñëwee Ahmadou Sall dëkkoon ci dëkk boobu ñu woyee Bamba nga xam ne ni nekkoon wali wu ñëpp xam nekkoon borom xam-xam nekkoon ku maanu nekkoon ku ku siiw nekkoon ku ñëpp war maan ba mu doon ñibbisi ci la sàkkoon ci ci sëñ Mahamadu Sari maa ngi lay ñaan ka nga njëkkaam nga na nga ko tuddee euh, yonente bi ka ca toppal nag ma ko tuddee moo taxoon ñu doon wooyee sëñ Tuba euh, Ahmadou Bamba ni ko seeblaat di nettali kon loolu mooy cosaan bi naka noonu itam ci bi mu ñëwee waajuram sëñ Mahamadu Sali ci loolu la nekk nekk nja di jàngale xam-xam daara ji ngeen di siiw ji ngeen di dégg ñoom jàngal ñëpp mën nañu daanaka faral leen jàngale ndax Mbàkke Kajoor diir bu gàtt dafa nekk. ba ni Maba Jaxu ñëwee sàkku ci ñoom ñu dem Saalum boobu ma mbalaay sa mag la dem mu digal ko maam Amady Sall dem ànd ak ñi fi nekkoon si Mor Jaar bokk na defoon ak mbooleem mbooleem magi Mbàkke yi demoon nañ boobee it fekk borom Tuubaa newoon fële ca Jolof ca Tafsir Mbàkke Ndumbe moom itam ba mu jàngee xuraan ba noppi ñibbi si waat ci nijaayam sëñ mu soobe ñoom ñëpp ñu ànd dem Saalum fa lañ nekk ba ma joxu génn àddina ñu dellu si waat Maodo Sy ànd ak euh, Lat dem Kajoor njëkk a dem fële ca pa fële ca Cilmaxa sëñ Mor ne woon Pataar boo ko soxla mu ñëw àttali ko mbirum diineem ba nañ ñëwee fii itam ci fu ñu jege ci Mbàkke Kajoor mu féete fa bu ko soxla mu ñëw àttali ko diir bu gàtt la fa def di lu ma juróom-benn at suñu borom moom ko. jàngale nag xam-xam na waaye jàngale ma moom fa leen gën a siiwee nja fa jàngale xam-xam gën a kon bi loolu amee eh, bay dim génn àddina keroog bi su talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram ci 1299 ci jeexalu siècle ba la woon ni ko sëriñ Bachir nettale sëtam ah bi loolu amee nag eh, ci la mbir mi am borom Tuubaa mi nga xam ne mooy lépp di rek eh, di sëriñu sëriñ Mor Jaara mi ñu nekk këram tey di rakkam itam ndax moo ko mag ca la woote woote bi mu woote bi mu ko wootee itam mu jógee diir bu gàtt ak at la fa cent 1301 ñu Mbàkke gi fekk si magam Serigne Mor Diarra. waaw kon euh, masalan ci gàttal diggante bi euh, loolu mooy dox bi dox ci diggante bi ba ñëw ci gox bii nag nga xam ne sancu fii nag ci loolu la soqi ko ma di ci profité waale it ci boo may leeralee ni ñu ñëwee fii ak sañ bi ni mu tàmbalee ci njalbeen ak euh, ay mbàkk yi fi ne ndax danañ fi tudd mbàkke baar yi di fi tudd itam mbàkke dimb yooyu yëpp it ma bëgg teqantal bi nekkaale ci biir ndax bu beneen yoone incha allah fu ci ne dañoo bëgg a jóg jëm fa waaye ñu boole lépp mu doon benn baat bi tey <laughs> looloon nga defaale nu ci ak laa biir waaw loolu moom daanaka euh, mooy loolu ñu wax ndax fii masalan mbàkki xewat bi nga ma laajee mënuma ci tontu direct ñëw mu ci lii ngir nga xam loolu bi ñu bisi bi amee ba ñëpp jóge jóge Saalum ñi bisiwaat ku ne fa nga nekkoon booba ña nga woon fële ca kaw newuñu fii ngeen fii ngeen fekk tey fële ca armée lay jëm na le fa dëkk bi nekkoon ci eh, ndigalu nijaayam sëriñ bu soobee moo ko digal mu sanc fii ñuy woy Mbàkke xewar xewar ak garab gu ngeen xam garab gu ngeen xam la muy garabu xewar xam ngeen ko fii ab eh, bërëb loon boo xamante ne bii ay tool toolu ñam yi moo fi nekkoon ak garab gu mag gu ñu waaye xewar léegi nag bi ko sëñ Bousso bu digalee mu sanc fi bi ñu ko waree sanc ko jóge fële ñëw fi ñu di ko wayu Mbàkke xewar waaye fële la njëkkoon sanc fële ci bàpp ga waaw foofu foofu ñu jóge moom mooy kon moom la ñuy wax Mbàkke bàpp hmm. fa lañ jógee ñëw fii tey bi ñuy dégg yëpp itam comme noonu rek euh, maanaam sëriñ si maam sali dafa amoon ñoo ñoo xamante ne bi ay ay kiyam lañ ay ay ay mbokkam lañ ci côté maam maaram ñooñu waa kër maam Abdou Xaadir nga xamante ne bi doomu maam Balla ay sala ak ñu bokk ak maam maaram ñoom ñëpp ku ne ku nekk fa nga nekkoon ñooy mbàkki dimbu fi mbàkke mbàkke yu bari am na fi waaye ni ma la ko waxee woon xam nga dimbu ak garab la koy noonu lañ koy toppee xam naa ne bu boo ñëwaat danañ mën a def gëstu yu gën a wax la nuñ ko wax nekk mu nekk loo xam ne ni day leer bu baax a baax waaye lii bii lii bi ko sëñ Bousso bi digalee li lu mu ngi doon tolloog ay 1888 89 waaye bu dee ci aadaay gi <coughs> atu gàddaay gi moom mi ngi tolloog 1309 ci la sanc fii ci ci ci atum gàddaay gi ci njëgalu sëriñ bu soobee sëñ bu soobee kenn ku ci nekk xam na ne euh, ku tudd askanu Mbàkke a sëñ bu soobee da ko ci boole te fii ñu dikk itam mel na ne ab xam la ndax daanaka la ne moom moo ko téye woon ba teg ko seen loxo ñu bëgg moom it nga may nu ci moom tuuti waaw loolu itam mm, loo daanaka boo tëddee sëriñ Mor su tudd nga sëriñ Moussa bi ndax mën nañ ni moo ko taxaw mooy nijaayam waaye moo ko taxaw ndax moo ko jàngal itam moo ko moo ko moo ko yar sëriñ Moussa bi moomu itam taxawaayam ci kër Cheikhul Khadim taxawaay la boo xamante ne bii mënootul borom Tuubaa te tuddoo ko ngir li ñu bokk ak taxawaayam ci xam-xam ak léppam ndax euh, euh, ni meloon kii nga xam ne mooy waajuru sëriñ Mor Jaara mi ñuy waxtaane tey moom moom ñu bokkoon ànd di jàng. ma Masamba Anta Diop moo ko jàngal xam-xam fële ca njàm fële ca Kajoor moom ki moom mi di Serigne Bousso bi fa la jàng xam-xam nekkoon ku ñëpp wóolu keroog li ma lay nettali tey ci ginnaaw bañ jógee fii dem Saalum jan ci njiital Maba Jaxu ba ñëpp dajee nga xam ne doon toon waa gox bi mboolem kuñ xam ci tund wi ci ci sous-région bi ñëpp dañ ñëwoon bañ dajee Maba Jaxu dafa toog mu ne leen dañ bëggoon nag ñu tànn koo xamante ne bi lépp luy aju ci lu ñu laaj ci xam ak diisoo mbirum jullit moom lañ koy dénk suñ biir nañ tànn loolu ku koy jiite bi mbooloo mi ne tekk mu ne man de dama doon tànn sëriñ bu soobee mu jiite ko ñëpp d'accord ci ngir lan amoon na xam-xam ñi ma woon na dëgg ragaloon na yàlla waliwu ñëpp xamul la keroog ba seew xarim Guinée dem Jolof ci 1212 ci at moomu ci la sëñ Moussa bu génn àddina mu ñëw fii jël si ñaan euh, jaale si delluwaat ba mu demee ci at moom mil mille deux cent treize mille trois cent treize ci mille trois cent douze bi mu génnee àddina ci at mi bi mu fi ñëwee ba dem jaal moom Cheikh Xadim ci at moomu ci lañ ko jàpp yóbbu ko sëñ bu soobee ci mille deux cent mille trois cent douze bi mu génnee ci lañ ko denc fii ci Mboussobé mu nekk koo xamante ne bii béréb lu fa waay ñan suñu borom nangu ko muy ku am cëru suñ borom cër bu ñëpp xam. béréb la yoo xamante ne bii mën na ne mooy cosaanu Mbàkke la ngeen daan dégg lépp yu ci bari fii la nekk. mag ñi ci bari fii lañ tëdd mag ñi àndoon ak sëriñ ñi ci bari fii lañ tëdd njëkk àndoon ak moom si bari ñu ngi fi kilifa yu bari ñu ngi fi bokk na ci ñoom si Mahamadou moom Cheikhul Khadim ak Cheikhul Khadim wa Cheikhul Khadim ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante bi ci béréb bi fi lañ leen denc béréb bi yoo ñi itam fonk nañ ko bu baax sama baay mi nettali na ma ne Cheikhul Khadim wax na ko ne béréb bi sëñ Bousso bi béréb boobu ak béréb suñu war bi lu fi ñaan bu faay ñaan suñu borom nangu ko Cheikhul Khadim daan na fi ñëw lu bari mag ñëpp dañ fee daan ñëw di siyaare si béréb la yu ñu xam daal ci ci yoon wi béréb la yu am yu am nit yu am nanguy ñaan waaw ndax ña fa nekk moom moom moo tax jumaa ji ni ñu ko waxee woon itam bala ñu ñëw ci wàllu kii bi euh, comme wàllu historique bi moom ñi ngi ciy wax mooy ni ko sëñ bi junj léegi jumaa la joo xamante ne bi euh, maanaam sëñ Mor Diarra jàkkaam la doonoon bi nga xamante ne bii Seexul Faadal sëñ Mor Diarra daf koo yoroon doon ko jàngal def ci moom lu bari mu wax ci moom itam lu bari am na nit mu naan day képp koo xamante ne bii ku mel ni ki ma yebal yebalu la nga ñu fekk si ku mel ni ki ma fekk si xam naa ci mbooti alxuraan karim loo xamante ni bii xamoo ko sëñ sëñ Fallu moo waxoon loolu sëñ Fallu ko ko yebaloon Cheikhul Khadim moo ko yebaloon mu ñëw fii ki mu fekk si woon sëñ moo jaar la kon day wane ne rek alxuraan am na ci may yoo xamante ni bii kenn fekk ko ci sëñ Amadu Fadal sër cëram ci kër Cheikhul Khadim yaakaar naa ne kenn du ko umpale ak wilaayam ak mayam kenn du ko umpale bokkoon na ci ñi nga xam ne sëñ moo jaar moo leen yoroon fii kon kon dogguma la ci gàttal moom mooy nag cëslaayul jàkk ji nga xam ne moom nga ñu bëgg a leeral. waaw mooy saanu kii bi bi loolu amee nag moom ci la sëñ bi doon juñu léegi ci ginnaaw sëñ euh, Seexuna juñu na ko léegi dafa waxoon ne euh, ab ab sëriñ ab taalibe day ameel na sëriñam bu nekk àllarba te sëriñ bu nekk yaakaar naa ne boo koy jox àllarba jox ko la mu gën a bëgg nga koy jox te sëriñ moo Diarra lu ko waaye jox àllarba lu ne rek maanaam jàkk moo gën moo ko gënal. ndax julli moo doon maanaam mandargaam moom la ko ñëpp xamee woon daana dem di julli ba mujjoon maanaam fi mu daan taxaw dafa mujjoon ñu defal ko fu mu doon jàpp noonu ngir ngir ngir ngir ak doole demoon bi fi mu daan dafa mel noonu xamu boo xoolee muy néeg fii ci ci ginnaaw foofu la nekkoon léegi ñu ngi koy tabax foofu la suñu wax jàll nekkoon nga xam ne nii liñ junj maanaam euh, la ko sëtam doon doon junj naan mox yi layal yi waaw mox yi layal yi bi awraadin seen yaati keroog euh, bi nga xam mi ngi génn àddina ci jullit fajar la tombeel mag ñi toog ci jàkk ji mu waxtaan ñi ñuy wér di jàng ba fajar jot mu jóg di jàpp fi muy jàppee fi la génn àddina kon yaakaar naa ne euh, koo xamante ni bi ci ci julli cee génn àddina bu la sa taalibe sa doom tabaxalee jàkka wàcc na jàkka jooju nag moom ngeen gis nii sëñ Fallu moo ko tabaxaloon ginnaaw bi itam ay jamono euh, doomam sëriñ euh, Mourou Moustapha yeesal na ko fi ginnaaw bi ñu bari ginnaawam itam ñi fi jaar ji def nañ ay yeesalaat bàyyi na waaye nag bi ñëwee ci xalifa bi tey monsieur Abdoulaye moom maanaam moo moo jongati lépp ndax moom daane daal suñu mor jaara daal damaa bëgg daal defal ko jumaa joo xam ne daal ku ko xam ne jumaa ji yelloo na ak magi mag nag kon daal sëñ bi doguma la moom mën nañ koo moomale bayit yu ñu wax ci xoqa ne kaanoo xibaadan bi taaxatin li rabbihimoo wa kaana jàllalohum rabban bi minnaati ginnaaw dañoo nekk ci ziar itam boo ziaree mbokk yi ba pare ñu nit nag ginnaaw ci mag la ñuy waxtaan ak ci ay mag ak gaa yu tedd danañ leen may xasida googu ñuy wax xoqal bu kaaw قلبك على سداد مرادي تبقي راد عليك إنك سماوات قلبك هو على ساداتنا مرادي تبقي دراد عليك إنك سماوات قلبك ولا ساداتنا مرادي تقيلات علي إن قاسم مرادي قلبك ولا ساداتنا يبقى حقادا للوعن من في خبوب الألاوي يا الناس يا فقد لقى به من خاب جذب جندها هم للحلوات تبجيل عليه هواسه فمان مثل بيبات تلك الخدوات كانوا عباد البدع لنا بهما وكان جعل لهم رابا بمناد كانوا يهود ناظر كالرد محسباهم من الأهل من اسماء باب المصيبات كان يزال الأرض قاست رزاء لكن خامس يا حليلي يا هجر جنة kon nag sëñ bi nga def ay ziar rek kon ñu ngi ziar suñu kilifa gi nga xam moom Eh, eh, ki fi nekkal suñu si astawaalo tamit Baye Sam di siyaare suñu kilifa Serigne Mbacke bi fi nekkal Baye Serigne Ngede di siyaare itam mboolem kilifa yi kër gi yëpp di ñaan suñu borom daal yàggal ñu yàggal leen fii bu baax di siyaare mboolem taalibe yi ñu siyaare fu ñu mën nekk bi ñaan suñu borom daal dimbale ñu ba yoon wi ñu teg nga xam ne fu ñu toll war a nekk la ñu a nekk teg suñu tànk suñu borom dimbale ñu ba loo jëmën a soppeeku soppeeku loolee dara bañ ciy génne ñu ngi sant bu baax itam yéen yéen eh, almouridia yéen ñi nga xam yéen ñëw fii tey ba may ñu ñu mën a leeral tuuti tuuti tuuti Eh, ci sëñ Mor Diarra ci ndiwal suñ kilifa eh, Atou Diagne waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm. ku baax ki noo ngi lay te di la ziyaare. waaw ñu ngi lay delloo ziyaare sëñ bi. Eh, ñu bëggoon xam tur wi nag ak sant wi. Caam taalib bépp sëñ Baara Xoroja. sëñ Moustapha Caam waaw sëñ Moustapha Caam taalib bépp Baara Xoroja. waaw euh, sëñ Moustapha am tey dañoo dikk ci Mbacke Xewar ñu bëggoon nag nga dikkal nu tuuti ci mbakke Xewar moom nan la mel. Mbacke Xewar daal mooy euh, dëkk Mamor Diarra maamam fii la sëñ Tuubaa gane àdduna euh, dëkkal fi nag maanaam bàyyi fi magam sëñ ma sëñ Mor ak njabootam waaw. dëkk bi di Mbacke Xewar soo fi dikkee ban yëg-yëg ngay njëkk am. Ah, maanam boo ñëwee nag dangay daal di xam ne dëkkub taalibe la dëkkub yi sëñ Tuubaa la dëkkub sëñ Tuubaa la waaw. waaw ginnaaw euh, dañoo bëgg gàttal rek ndax waxtu wi euh, ci émission ziar lañ la dalal ñu bëgg itam mbokk yi nga xam ne dañ fee nekk di ay mbokki taalibe ñoom ñëpp ah, nga jotal leen sab ziar waaw waaw baax na kon maa ngi jotal sama ziar sëñ Moussa Diop mii nga xam ne mooy jëngatu ci xasaayda yi ak sëñ Baara Mamour Diop ma la nga xam ne mooy suñu kilifa ah, gannaaw bu ma jiitalee nag sëñ Abdoulaye Mbacke yàllaay buur waaw ma waaw maa ngi ko jiital waal taalibe Mbacke xewal yëpp daal maa ngi jiital ak taalibe yëpp daal <laughs> waaw waaw ñu ngi lay sant di la gërëm kon xasit ak si ndiidi rek xam naa danañ leen ko ci tegal jërëjëf bismillahi rahmani rahim wa salaamu taala ala sayyidina muhammadin wa salaamu tasliman ya abi mustafa sididi amaaru wa bi khalilika ibrahim ya abi mustafa sididi Musa. ziare bu baax sëñ euh, jatara euh, dafa mel ni képp koo xamante ne ñëw nga fii ci Mbàkke Xewar boo waxee ci sëriñ bi ba noppi itam wax ci jàkka mbirum alxuraan nag di nga ci wax kon ñu bëggoon nga indil nu tur yi rek sëñ jatara te may nu nag fii mboolem jàkk yi nga xam ne dafa nekk ci euh, dëkkub seexul xaddim bi jàkk ju ci ne defe naa ne dañ fay wàcce ay kaamil ñu bëggoon a xam fii it loolu nan la fi tëdde salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di ci turu sëriñ Seexuna mi toog leen nuyu ci sëriñ Balla Jotoro suñu kilifa gannaaw bu loolu wéyee nag moom li nga wax léegi gis na ko bu baax a baax nun sëñ Mor Diarra yàlla moo ko boole ak nun suñuy wàjjur ku ñuy wax Mor Asta Jotoro fii këram gi nekk tey bañ fi nekk sëñ Mor Diarra moo ko fi déglu dafa siyaareel yoon Jolof ànd ak ku ñu xamante ne dara ak ngañ diba ba muy dikk fekk ñu toxal dëkk bi sëñ Mor Diarra mënta ñàkk dëkk ak moom mënta mënta sore ak moom. ñu jox ko jàkk ji mu nekk fii di jàngale nekk ci alxuraan ba bis ni tey ba mu fi jógee ku doomam bi ñuy wax sëriñ Jatara nekk fi nekk ci alxuraan sëñ Fallu toxal ko tubaa sëriñ Balla yor ko ba mënatut a ñëw sëñ Balla mi ngi fi ci kër gi dara dafa dafa màggat waaye dara jotu ko moom dafa dem ba jeex rek ba mu fi jógee ba sëñ Balla nekk mënatu ñëw ñu nekkee li fi jàppal ko ndigal li ngir jëmmi sëñ Mor Jaara boobaak léegi nag dafa yàgg ba ta yëkkati ma abert ba ba ba mënu ko mënu ma xam taarix bëgg a xam kon euh, kaamil yi. naka la ko fi jànge fii. léegi saa su julli takkusaan su ne danañ fa ci kaamil alxuraan ci ndigal sëriñ bi daf ko addi sëriñ Tuubaa ak sëriñ Mor Jaara dañ ko tàmbali léegi nag man ba ma xàmmee rek ba ma xàmmee rek laa laa fekk ñu di ko def par altine lañ ko daan def di ko def par altine bañ demee ba ba sëñ Abdou Khadir joxe ko ku mel ni sëñ Mor Diarra war bët bu set mu jàng fa kilifa yi ne di fi ñëw bët bët bu set ñu wàcc fi kay mel alxuraan ba fii ni bi may jógee fii léegi dañ maa woo ne ma sëñ Cheikh naa nga ñëw nee ñëw daa am waxtaan suñuy waxtaan fii ci kër gi nga fekk si ko kaayil boobu ba tey ba tey jii léegi ba may jógee maa ngi bàyyi ña ngi koy wàcce jëmmi ziar ci boppam Euh, dox ak bokk baax na nemmeeku nit baax na waaye siyaare itam sëriñ bi dafa am lu ci wax ndax dafa wax ne jour man tuhibbu wa insattat bi ka daaru waxaala min doonihi sahlun wa awxaaru kon buñ tuddee émission bi noonu ñëw ba yëg si ci yéen bëggoon nañ itam yéen it ngeen jotal seenub siyaare kon nag euh, ñu ngi leen di siyaare fekk sëriñ Seexu ci turu sëriñ Seexu naa Mbàkke mi ak euh, sëriñ Abdoulaye Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekkal xañ Maam Jaara ñaanal sa borom yàggal lool euh, rakam yi nga xam ne mooy Serigne Cheikh nag ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ñu di leen ñaanal seen taxawaay yàgg ndax ñoom it wax dëgg yàlla euh, kër gi am nañ ci jàppin woo xam wax dëgg yàlla fu ñu toll xel ak sunu xol du jóg ci ñoom ñu leen di ñaanal di si di leen siyaare di ñaan sa borom li nga xam ne moom la ñu yéene liggéeyal sëñ Mor Dia sëñ Mor Diarra sa borom guddal seen fan bu ñu àggale ko li ñu ànd koog ñoom ci barkeb sëriñ bi yéen it yéen it taxaw liggéey bu ngir jëm sëñ Mor Diarra dikk fii di siyaare ñu ngi ñaan li nga xam Mor liggéeyal na defal lu seen jor maa ngi ci dolli ne kum nar añal ku ne kum nar añal ku ne dalee liggéeyaloo gannaaw dalee lii yàlla xëy na ba ñëw def ngir Mor ba nga lu ngeen bëgg den ko am. kon bi kon sëñ bi jërëjëf ginnaaw uh, xasida ak Taysiir boo ko xoolee dañ ko mooñee <laughs> ñu ñu dañ leen ko may incha allah. jërëjëf jërëjëf يا من لا إله خيره يا من أتاني دون شر خيره سل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسمع كبتي يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون غير خيره سل وسلم وتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء والآل والساب بلا انتهاء وكن مهيسا بحق العسبلة وانشر علينا بركات البسملة وسل يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سمعته مضيء والآل والسهد ومن يضيء وانصر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي خير باب الفاتحة هي التي sang bi eh, ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la ñu bëggoon a xam tur wi ak sant wi. maa ngi tudd Serigne Mbaye waaw. sëriñ la tudd sant mbay waaw mbay gi nag moom xam naa ne naqari na lool ndax xamal ne ab wàdd wàdd moo jàkkaarloo ak yow <laughs> waaw sëñ bi ñu euh, bëggoon nga jotal sa siyaar rek fii ci Mbàkke Xewar mu doon dëkk boo xam ne dëkk sëriñ Mamoor Jaara la euh, bi nga fi ñëwee ban yëg-yëg nga fi am ci bis bi fii ginnaaw boo sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam sant sëriñ maa ngi leen di sant yéen ñi itam ndax euh, lii ku la ci boole ku nekk rek moo lay wutal sa ngëneel ndax Maam Mor Jaara mooy magi mag te li ñuy ñàkk-ñàkk xam-xam xam nañ ni liggéeyal Serigne Touba boo liggéeyalee Maam Mor Jaara liggéeyal nga Serigne Touba liggéeyal nga yonent bi liggéey liggéeyal suñu bon kon defe naa bu ñu jógee tey jii jëloon sunu dàll di siyaare si ku baax ki fi nekk yàlla def ndax euh, soxnaam bokk ci moom wàññeeku woon ca fekk jamono boobu ñu génnoon réew mi ñëw tombe gi yeen ngeen di wax mbirum siaré dañ ci sant bu baax di siaré bu baax baax yaakaar ni suñu siyaare sax egg na ndax euh, Mamor Diar mom euh, yaakaar na fa lepp di doré fa lepp di yem itam waaw ñu ngi sant bu baax baax baax. wa bëggoon nañ siar boobu nga yaatal ko ba ci mbokk yi ak wëllëre yi ak xarit yi ak andi di jàmm yi. waaw kon buñ ko defee ndax xam nga ñun taalibe lañu murit moom lépp lu mu def rek da koy da koy def ci turu ñim ñim nekk ak yépp te it yaakaar gëm naa ni saar bi attan na ko euh, li ma daan wax rek euh, ni buñ demee boo demee ca Kaaba da ngay ñaan mais fii tam boo fi ëgsee mën naa ni siyaare bi yàlla na egg ci képp koo xamante ni mos naa laa gis mbaa nga mbaa mbaa ma xool la rek waaw loolu daal mu gën a yaatu waaw ku ma xam ku ma xamul koo mos a gis rek waaw yool bi daal yàlla na ci egg ci ñoom waaw euh, matam si fay jërëjëf sëñ bi jërëjëf sëñ Mbaye ñu ngi lay sant di la gërëm hamdan li munsili dana wa daa'i wa munsili sifaahi wa dawaa'i hamdan li munsili dana wa daa'i wa munsili sifaahi wa dawaa'i man amara al ibada bi duhaa'i ليدفعوا به عن البلاء ثم على من أيسما فسامر يبرى بلا بط وفاز بالخلل محمد طبيبنا الحكيم أزكى السلام ربنا الكريم والآل وصحب زين ألاي ما احتاج الأصحاب لصفاي هذا وإني يوم سوء أو جاي متقيا أو المجيب الضاهي أستكي إليهما من الضرر رتم السبيل حتى أراني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا زيادتي ah soxna si eh, yow it ñu ngi lay nuyu ah, di la ziar. ni maa ngi gërëm képp koo xam taq na ci Mame Mor di ko ziar ak njabootam ak ñëpp ñu nekk ci Mbàkke xawar ñu baax ñu neex a dëkkal ñu nekkal ñu am taalibe ñu am lislaam ñu am diine kon ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di leen biral nuyoo di leen gërëm yéen di leen sant parce que lii ngeen di def lu am solo la ndax lii dina tax nit ñi delloo waat seen bopp ci yàlla te xam ne yàlla rek kay buur yàlla rek mooy kenn muy télévision Al Mouridiyyah yéen xam naa ni ñu am Pastef ngeen ñu xarañ ngeen ñu bëgg yoon lislaam ngeen ñu bëgg sëñ Tuubaa ngeen dana ñaan yàlla seen télé fa ngeen bëgg ag yalla agale leen fa sëriñ bi nga xamni mo taxit ma fekke li tay ba duggal sama kaddu ma diko ñaanal yalla may ko gudd fan ak wër ci barke sayidina Muhammad sallallahu wasallam ci barke mam mo Jaara min tok fi tay ci péncam mi de ko ñaan allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jërëjëf soxna si ñu ngi lay sant di gërëm waju ju baax maa ngi lay nuyu di la ziaré yalla yalla ngi ziaré bo la ñu ziar ñu ngi lay delo ziar bay barke sayidina Tuubaa ndax mën nañu xam euh, turu waaw kii de Moussa Diop Baye Fall lañ koy wax. Mhm. taalib Cheikh Ibra Fall. Mhm. soppe si Abdoulaye soldaar soldaar maam moo jaar saam. waaw xanaa di ziare mbokk taalib yëpp rek di ñaan ñëpp rek suñu borom dafa leen gudd fan ak wér ñaan suñu ci réew mi di ziare waa Al ñëpp nag. ndax di rafetlu seen liggéey di ci kontaan ndax rajo bu Mouride télé bu la di xool seet nañu guy leen ñaanalaat fépp fu seen yéene suñu borom mat la ko bàkk sëñ ñu ngi ñëpp nag boobuñ kenn buñ limee dañ jiw waaye ziare dañ ñëpp rek

لله قد ربي بما يسراه أسان خار فجاء بجاه أفضل من لله قد an saatihan mala eh, sëñ bi la ndax dafa mel ni dëkk bii di Mbacke Xewar yaay chef de bi ñu bëgg nga fàttali tur wi te defal ñu tuuti it ab taxaw seetlu ci Mbacke Xewar. bii ñu ngi may woowee Baara Mamadou Diop ñu tuddee ma sëñ Baara ñu nag euh, ñu bëggoon xam euh, doxu dëkk bi ci wàll yokkute. doxu dëkk bi de moom euh, dëkk bi de ay ay jamono. bari dispensaire bi ma fi nekkoon bi fi dispensaire boobu nekkee muy dispensaire bii rek gannaaw bi euh, dem nañ ba yokk ci ñett ñaari poste ñetti poste sax di yu hôpital yoo xam ne benn bi ñu ko tuddi dispensaire municipal boobu yamoon na bi ñu koy créé fekk na man booba sax nekk guma maire man nekk naa ba premier adjoint maire ba nekkee premier adjoint maire ci ay jamono ba ci kan ñu def ba loola euh, jeex ma nekk fi président comité santé avant may nekk FMR ba may nekk président comité santé bi ñu indi fi ñaari poste de santé benn bi ñu indi ko Mbàkke dimb ak beneen poste de santé mën nañu ko yóbbu ñu yóbbu ko jàmmagal mu nekk bon ñetti poste de santé yoo xam ne yokk na fi waaw maa ngi siyaar bon Mbàkke gépp di siyaar mboolem juróom-benni quartier yi nekk Mbàkke yépp ci barkeem Mbàkke xewal di siyaar kilifa yi nekk foofa yépp ci barkeem Maam di ñaanit yéen seen rajo bii euh, euh, muy lu nit ñi mas a namm la boo seen seen jawrin muy aatu aatu jaañ xam naa moom wax sama xarita daanaa ko wax ne ko na tuut waaye ndax maa day door a jot waaw maa ngi ñoom ñii ma koy mi ngi nii ma ne day door a jot léegi waaye aatu sama xarita ñu koy siyaaru di siyaaru yéen ñëpp yi nga xam ne yéen a boor moom bi réew yi ak bitim réew ñëpp di la ñaanal seen li ngeen yéene ci yoonu Sëriñ Tuubaa bi yàlla na ko yàlla àggale ci barki Xaadimu Mustafa ak barki Maam Mor Jaara mi suñu yaakaar kon nag sëñ bi làkkaru jooxe maxa jumóoy bi xëy ri jooxe wala xataay dafa nekk ci biir bi moo tax xasida googu moom leen di may yéen jërëjëf ñu sant di gërëm yéen a ngi ànd ak seen émission ba tey ngeen xam ne siyaar bi ñu def si woon ci Mbàkke Xewar bi ñu ñëwee am nañ tawféex jàll si waale ci fii nga xamante wax nañu ni ku baax ki di Seexul Xadim fi la gane jamono ñu fekk fi nag euh, sang bii nga xamante ne euh, euh, sunu bàyyi la di sëriñ Mbàkke Saw ñu jox ko kàddu gi rek mu baaxee ñu ci tuuti ci ak laaj bi. gone yi fi ñëw ñu laaj ci mbiram sëñ bi waaw ah, ñu di leen ci xaw ne suñu xam-xam bëriwul ci waaye ñu di leen ci xam li wax ndax liñ ci fekk daal mag ñu wax nañ fii la gàddee àdduna yàlla dogal nag ñaari doomeem ngi fii ku góor ak ku jigéen kii ma mën kàddoon tudd kii soxna Faati loolu laa ñun lañ fa xam am ne ci barab bi di ko dundal la Faati ak sëñ Fallou la ko ndeeg baay moo njëkk ñëw sëñ Fallou Mamadou Kabir dem soxna soxna Silla la tudd waaw waaw loolu laa laa ci mën a. kon kon jërëjëf sëñ Sow jërëjëf. sang la ziare na sant wi. doom ci Serigne Mbacke Sow ah di sët Seer Sow ah, fii lañ gën a àdduna nag ah ñu suñu waajur waxee loolu lañ fi jàpp ah jëlee ko waajuram. waaw barab bi ñu la fekk nga taxaw fi mooy barab bu kan. yii day ci la ma sama waajur wee toog wax sëñ Mamadou Kabir li sëñ bi mag bi njëkkam ci àdduna. ak soxna fati mu bokk ak serigne fallu way ju jigéen ñoo bokk dëdd fi fii barab bi sa wajur nettali na ma bi barab bi réeree soxna fat dem moom sëñ bu mag bi mo woote serigne fallu ñëw féral barab bo ba légui ah ñu ngi fi di wat ginnaaw waxtu tàbbi na kon ñu nga maye ziar rek ñu alhamdullilah ah ñuy sant nak ci liggéey bi ci Touba ñu ñew dox ko pour xam jeexati señ bi loolu daal moom lañ ko dee tënk gannaaw waxtu wi jot na asalaamaaleykum wa rahmatullah ah di ko bëggee sama waa kër nag sama njaboot ah ak sama yarak yi ma bokkal bàyyi ca nekk ca àll ba ca ma teewal leen fi di ziar bokk yi niñ leen ko waxee ca tàmbali ba xamaloon nañ leen ne émission ziar ñëwoon na fii tey ci dëkk bii di Mbàkke Xewar ànd nañu ak yéen itam mboolem yi nga xamante ne nekk na fi ci ay barab ziar dale ko ci boo ñëwee ci pénc mi fekk fi jàkka ju mag joo xamante ne dañ koo naan eh, diggante lu jëm ci daara alxuraan yi itam gis ngeen ko and nañu itam waxtaan nañ ci serigne Mamour Diarra mi nga xamantene moy magi mag waxtaan nañ itam ci serigne Bousobe masalan dal ci gattal diggante yi nga xamantene ay barab la yu am solo fi ci bir makki xewal and nañ ko ak yeen kon ñi ngi leen di jox dig dajé ba benen yoon ci seen émission ziar di leen wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh